أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi leen di ziara di leen baalu àq ci weeru màgg wi nu génn muy shahru ramadan al mubarak ñu ngi ñaan buur yàlla subhanahu wa taala lépp luñ ko ci jaamu mu néew mu bari yal nañ ko yàlla nangul lépp luñ ci tarxiis yal nañu yàlla jéggal ñu tàmbali tey dars yi toll ci suratul baqara di tàmbalee aaya 240 241 242 ñetti aaya yi nekk sunu kanam borom bi subhaanahu wa taala dañul di ci leeral atte jigéen ju ñu fase atte jigéen ju ñu fase ak jigéen joo xam ne boroom këram dafa faatu boroom baa ngi xamal subhanahu wa taala ne ñi nga xam ne dañuy faatu bokk ci way gëm yàlla yi bàyyi ay soxna soxna yooyu am na ndénkaane guñ leen di defal loolu nag war na ci ñi nga xam ne ñooy donn ki góor ki faatu respecté ndénkaane yooyu seen mbokk moomu def waaye aaye bi ci kaw muy aaye 240 lenn ci boroom xam-xam dañ ko man suuxal dañu wuute dafa am ixtilaaf ci aaye bi àtte bi des na wala dañ koo man suuxal am na ñu ko desal am na ñu ko man suuxal bokk na ci ñu ko saxal seexul islaam ibnu taymiya ak ndongoom bi ibnul qayyim al jawzi mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mi ngi soññ ñi nga xam ne ñooy donn ku faatu ñu respecté ndénkaane yi nga xam ne moom la leen waa ji waxoon avant muy faatu mu ne nañ ko def su fekkente ne waa ji def ko waxoon ne nañ ko jox jabaram wala nañ ko ko defal nañ ko respecté te ndénkaane googu rek mooy su ma faatoo bàyyi leen sama soxna ci sama biir kër at su fekkente ne yow yaa moom kër gi luwewoo nañ ko fa bàyyi at at boobu nag muy nekk ndaw si di fa nekk idda bi mu doon jëlaale ténj bi mu doon def daf ci bokkaale mais lenn ci ay boroom xam-xam li tax ñu ne aaya bi dafa mansuux mooy aaya bi nekk ci suufam lañ ne moo ko mansuuxal beneen bi mooy aaya miraas lañ ne moo ko mansuuxal almuhim mooy ixtilaaf am na ci aaya bi aaya yi ñetti aaya liñ ciy jële pour jàng bi ci njëkk mooy al ibqa alal mu'tadidati iddatu wafaati fi baytil xaaliki sana liñ ciy jële pour jàng bi ci njëkk mooy ki jëkkëram faatu na des ci kër gi jëkkëram faatoo at comme cheikh bi aboubacar jaabir al jazair moom dafa saxal moom dafa saxal aaye bi man suxalul atte bi moo tax mu ne jigéen su bërëm këram faatoo day toog fa mu faatoo ci biir kër bërëm kër gi dafay toog at bu fekkee neex na ko moom ku jigéen ki su ko neexul nag du fa toog in taabat nafsaha bi zalik fekkee bëgg na ko ñu ne ko kër gaa ngi nii mën nga fi nekk at defaale sa ténj ba mu jeex fekkee ne neex na ko wa baada zalika baada inqidaai l idda nee na mën naa nekk sax ginnaaw ba idda bi paasee nekk ci kër gi ténj ba ténj bi jeex mu toogaat ci kër gi at mu ne mën nañ cee yokk fa zaidu wa huwa sabaatu ashhur wa ishruna yawman mu nekk juróom-ñaari weer ak ñaar fukki fan fi hadihi alwasiya illa an aljumhur ahlul ilmi yaquluna bi nusxi hadihi alaya dégg nga mu ne jumhur suñ ne jumhur mooy xam ngeen ne source l'islam yi ñett la alquran la ak sunna ak jumhur alquran mooy lu yàlla wax balaa ñuy seeti kenn lu mu wax li yàlla wax la ñuy jël ba pare mooy alquran su yàlla waxulee ci mbir mi ñu xool lu ci yonent bi wax ginnaaw yàlla yonent bi su ci yonent bi waxulee ñu xool boroom xam-xam yi lu ñu wax boroom xam-xam yi tamit ñi ëpp li ñu wax loolu mooy jumhur su fekkee boroom xam-xam yi téeméer lañ juróom benn fukk yi daan ne lii la ñaataa ci des kon ñeen fukk yi ñoo gën a tuuti kon jumhur la ñuy wax jumhur nag dañoo mën suuxal aaya bi mu ne ñoom dañuy wax ne bi nasqi hasil wasiya nee na wasiya bii boroom kër doon ko doon wasiya soxnaam naan bu ma faatoo na sama soxna nekk sama kër nangam ak nangam jumhur ne nañ dañoo man suuxal atte bii njàng mee fi des mais atte bi dañ koo man suuxal waaye moom nee na wa adami alqawli bi nasxi awla nee na ñàkk a wax ne aaya bi dañ ko muus dañ ko man suuxal looloo gën li ixtilaafihim fi naasixi laha ndax dañoo wuute ci dañ ko man suuxal wala man suuxaluñ ko moom nag ki nga xam ne moom lañ yor téeréem di ci tafsir moom dafa màcc ànd ak ñi nga xam ne man suuxaluñu atte bi ñaareel bi mooy xaqul mutlaq xaqul mutlaq mutallaq almadxuli biha fi lmutaati bilmaaruf bépp jigéen boo xam ne ki la takk dugg naa ak yow biir néeg nekk ak yow suñ la fasee war nañ laa jox yóbbal bépp góor bu takk soxna nekk ak moom bu doon benn guddi sax wala benn minute wala benn waxtu soo ko fasee war nga kaa jox yóbbal lan mooy yóbbal bi mooy ci alal ci xaalis wala ci ay yére wala ci ay matériel nga jox ko ko mu nekk yóbbal ñetteel mooy minnatullahi ala hadihi l umma yàlla dafa xéewal dafa defal xeet wi xéewal xéewal gi mooy lan bi bayaani al ahkaami laha yàlla def leen leeralal ay atte pour xeet wi mën a làmbatu xeet wi xam fan la ñuy teg seen tànk yàlla subhanahu wa taala indil ñu ay atte yoo xamante ne bu ñuy dund du ñu làcce ji du ñu làmbatu ji dañuy ñëw rek daal def li yàlla wax daal di noppalu loolu xéewal gu rëy la gu ñu yàlla defal loolu moo tax tey l'islam bu tumarankee ci biir ci àddina bi ba jullit ñi xamuñu fu ñuy teg seen tànk dëgg dëgg dëgg lu lu lu yéeme la ndax lu warul woon mën a nekk ndax yàlla leeral nañu ay àtte yoo xam ne pour ñu texe li tas ada biha ngir ñu texe ci àtte yooyu wa takammuli aleyha ngir ñu mën a mat ci àtte yooyu fa lillahi alhamdu wa shukru kon sant war na ñeel yàlla ak di ko bàkk di ko kañ moom mi daanaka faral xeet wii boole leeg yonent yàlla muhammad dafa leen lépp luy ngëneel ci seeni mbir bu ñëwee ci nas yi aaya yi borom bi subhanahu wa taala mu ne audu billahi min alshaytani arrajim بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول mataan ila alxawli gayra ixraaj fa in xarajna fala junaha alaykum fima faalna fi anfusihinna min maaruf wallahu azizun hakim وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون يقول مولانا جل وعلا والذين ينغا خمنه borom xam-xam yi nee nañ saa yoo gisee wallazina jàppal ne ismu mawsul la ñu am xel la yàlla di waxal loolu la wallazina di tekki mooy ñu am xel borom bi nee na wallazina gaa yi nga xam ne yu tawafaw na ñooy faatu ñooy génn àdduna ñooy dee minkum ci yéen jullit ñii faatu góor ñii faatu ci yéen wa yazaruna azwaajan te ñuy bàyyi ay soxna seen ginnaaw wasiya dañ def benn ndénkaan lii nag aaya bi li tax ñu ne dañ ko man suuxal mooy aaya miraas ndax la wasiyata lil waaris kuy donn kenn du ko defal benn paar ne moom lañ ko may tey ba papa ji bu amee alal mu war a faatu am na ci doom yi ku ko gënoon déggal mu daan ne bu ma faatoo diw mi may naa ko kër gi wala may naa ko oto bi wala ah loolu après boo faatoo dañ charia da koy dindi comme moom day donn amul loo koy jagleel ci paar ci alalu kër gi bi ngay dund nag loo neex mën nga koo may ci sa alal mais boo bàyyee bay faatu xam nga ne da ngay dee nga ni alal kër gi bi ma dee may naa ko diw boo dee charia day dindi loolu wala nga am ñaari jabar wala ñetti jabar nga ni bu ma faatoo sama bari benn jabar bi laa may kër gi charia daf koy dindi ndax kuy donnu loo def wasiya kenn du la kenn du ko nangu ndax day doon dangay doon su ko defee borom bi ne ñi nga xam ne dañuy faatu ci yéen ñu bàyyi ay soxna ndénkaane guñ doon dénk wasiyatun alal wari alal warasati zawj al mutawaffi an yunafisaha bu fekkee ne dañuy jël ñi saxal aaya bi ñooñu dañu ne ñii doon waaji ñii doon waaji nañu respecté exécuté waaji li mu dénkaane na jabaram bu mu génn kër gi na fi nekk ténj ba jeexal loolu dañ ko war a respecté su fekkee nag ñi ànd ci aaya bi dañ ko mën suuxal kon loolu kenn du ko def kenn du ko respecté ndaw si bu ténjee bu jeexalee anawaa day départ almuhim borom bi subhanahu wa taala mu ne wasiya ndénkaane gi nañ ko sàmm li azwaajihim ci seeni soxna ya ñu nekkaloon bu fekkee def na ndénkaane ndénkaane gi nañ ko respecté ñi war a doon naat ku jigéen ki nañu respecté lool mbokk yi lii daf ñuy delloo si waat rek ci li ñu daan wax ne diine ji nit ñi bu ñu ko gëmee jàpp ko rek dund ci àdduna dund jàmm ndax lépp suñu borom jàngal nañu ko li ma leen ne lislaam dafa ñëw pour nu dund ko islaam ñëwul pour nekk diine barkeelu comme tey ni ko nit ñi defee barkeelu boo yoree kaamil di romb nit ñi ñu ne la ma barkeelu ci waay daat ci teg loxo diw ci kanam islaam ñëwul pour loolu boo yoroon siyaada sax siyaada bu rafet nga gis ñu def ci ni comme siyaada bi ni mu amee dessin kaaba gi nga gis ku ñëw nii nii di raay di raay kaaba gi nii nii di raay lii fekk yow raayoo kaaba de sijaada ngay raay sijaada wala nga ñëw di raay karo yi karo yi ndeysaan dem nañ kër gi yonent bi juddoo sallallahu alayhi wa sallam ci jamono aj ma ànd ak benn délégation ñu dem ba yegg ci kër gi yonent bi juddoo gars yi di raay tabax bi di diw seen kanam benn naar xool leen ba caagu mu ne leen wallahi haza hajar lii miir kese la ciment wallahi ma fii baraka haza hajar wax na dëgg ciment la mu ne leen amul benn barke mu ne fii amul luñ fi jàng amul luñ fi ñaan fii la yonent bi juddoo jeex na jeex na mais nit ñi sénégalais yi ñoom ñoo gëm affaire barke ba nga xam ne barke boobu daf leen yóbbu ci bokkaale buñ nee diw moo toogoon fi buñ ñëwee foog ñu toog fa diw moo naanoon fi buñ ñëwee foog ñu naan ci ndox moomu diw moo fi dugaloon tànkam foog ñu dugal fi seen tànk diw moo fi foog ñu def loolu léegi loolu day dem day dem di dem di dem ba nga léegi dañuy jékki-jékki sax nga gis ay nit benn riir am nga ni lan la ñu ne benn kilifa moo feeñ fële ci benn tabax gars yi di njëkkante di xool wala moo feeñ fële ci géej gi wala moo dugg fële wala moo te loolu yëpp amul importance amul benn njëriñ l'islam diine ji tey jullit ñu waruñoo nekk ay làmbatukat tey fii àddina bi toll ñun ñoo ko waroon jiite lu tax ñun am nañ référence am nañ ku ñuy roy am nañ fu ñuy delluwaat am nañ fu ñu sukkandiku am nañ fu ñu teg suñu temps gis nga tey par exemple lii dal Sénégal ci mbënd mi ndox mi bu nu fekkoon ne l'islam moo fiy ràññee kon lii du am kon xam nañ nuñ xam nañ solution yi léegi ñu defar ko mais du l'islam moo fi nekk ñii di rey nit ñi nii ah di leen soode ay ndox mu tàng ak ay asib ak ay diwlin te ku leen rey ñu wax bu fi l'islam nekkoon da koy réglé bu fi l'islam nekkoon nit dina wallahi kon gis ngeen parking stade bi ni mu tàngee nii da ngay fekk guddi ku nekk takk sa sànk nit ñi di nelaw njaganaayoo seeni portable ak seeni kalpe di di di di noyyi air bu neex bi oxygène pur bi mais kenn ñemewu ko lu tax parce que addina bi bandi yi la ñuy aar mais kenn aarul nit ñi parce que lu tax ay bandi ñoo ko jiite comme ay bandi ñoo jiite addina bi ñoo tëral loi yi bandi yi la ñuy aar xoolal nit day tabax këram def giri yi buntu weñ giri weñ buntu kër gi mu def ko buntu weñ buntu néegam miir bi mu def ci ay xottu butéel wala mu def ci ay weñ mu njaganaayoo pistolet ñu ñëw daj dugg rey ko kenn du wax kenn du mars kenn du wax mais moom moom waa ji bu reppoon ba rey ci kenn ñu tëj ko wala ki ko rey bu ko waa dëkk koñ bi reyee police ñëw dugg ci koñ bi di jàpp ñu ko rey ñan la ñan ñoo dóor waa ji ba mu dee ñan la ñan la ñan ngeen ci xàmmee ki ñu rey moom fàtte nañ ko ci àdduna boobu lan nekk àdduna boo xam ne bandi yi la ñuy aar mais aaruñu nit ñu baax ñi pourtant président de la république ku ko bëgg a rey buñ la jàppee nunu lay def rey ah président moo gën nit ñi président moo la gën yow fi mu ne ku la bëgg a rey bu ñu ko jàppee nu ñuy def dañ koy tëj ki bëgg a rey président bu ñu ko jàppee nu ñu koy def pourquoi xanaa yow yow doo nit mooy loi bi dafa am ñu muy aar am ñoo xam ne seen yoon nekku ci te loolu du lislaam lislaam mooy ñëpp a yem annaasu sawaasiya ka asnaanil mus ñëpp a yem comme bu ñu peñi laa fadlun li arabiyin alal ajam arab yi gëñuñu nit ñi ñuul ñi nit ñi ñuul ñi gënuñu arab yi illa bi taqwa lu dul ci ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a baax mooy ki gën a ragal yàlla ki fi gën mooy ki gën a ragal yàlla mais tey kan mooy ki fi gën ki fi gën ci Sénégal mooy kan mooy ku sant nangam wala kuy liggéey présidence nga xam ne moto yi dalay garder boo génnee yooyu yi ñëw fi gën ñaar ñii soo sante soo bokkee ci kilifa diine yi nga sant nangam yow ci ñi fi gën nga bokk foo ne bëreet ñëpp jóg taxaw yaatal leen yoon wi nga ñëw toog boo xamee boo xamul boo bokkee ci ñi takk ndomba tànk ci réew mi boo jógee ñëpp ne bërët ñoo ñooy ñi fi gën ci àddina de ci yàlla nag ki ragal yàlla moo fi gën su ñuulee bu weexee bu xonqee bu zonee mooy ki fi gën kon aaya yi daf ñuy delloo siwaat ñu xam ne diine ji ñu am bàyyiwul lenn ci kaw suuf pour ñu war a nekk ay ay làmbatukat di làcce wala ñu réere suñu diine ba du ñu war a xam lu ñu def yàlla nee na mataan na nekk yóbbal ilal xawli at ndénkaane googu waa ji dénkaane ne bu ma faatoo sama soxna na nekk sama kër nañ ko bàyyi ndaw si muy bànneexu ci kër gi ba at jot ba mu am at mataan ilal xawli na fi nekk at moom soxna soosu al am gis nga atum lëmm na nekk ci kër gi bu mu génn ténj bi daf ci bokk hmm? ci dépasse ci kër gi lay lekk ci courant bi lay taal ndox mi lay naan ba at bi jeex loolu mooy ndénkaane gi waaw na fi nekk loolu mooy atte yàlla subhanahu wa taala mais tey da ngay gis jigéen borom këram faatu tey ñu suuli ko ñëwaat suba ndaw si ñibbi ñi ñëw di jaale sax bu ñëwee ci kër gi duñ fekk soxna si ndax ay intérêt waaw daa dem sama kër nga xam ne jaxal gi buñ ko fa indee man dong la ñeneen duñ ci bokk jaxal gi kenn du ci togg xam nga yooyu la ñuy wax quoi nga xam ne sama kër la ñuy ñëw waaw comme kilifa la woon jaxal gi Sénégal alal daf ko yàq alal dafa yàq Sénégal ba nit ñi mënatuñu nekk ay gor mais alal moo leen jiital waaw léegi moo tax dara baaxatul mbokk gi dafa tas ànd gi yàqu kenn mënatul dund dara lu tax parce que alal moo jiital nit ñi am am moo jiital nit ñi am am nu waaye def ba am rek baax na amatoo xoolatoo ngor xoolatoo diine xoolatoo jom xoolatoo dara naa am rek tey nit ñi ngeen di gis ñuy rey la moo tax ñi leen di rey xoolal ci bëgg portable jàmbur rek portable ñi yor portable am nga ñëw rey ko jël portable bi moom kay boo ko ne woon indi sax mu jox la ko mais day ñëw rek jam waaw jam ci bët ah jam ci xol wala tiim la di la jamate ba nga sedd guy loolu loolu tey ci ci ci ci ci àdduna bu mel nii lan ma ko waral pour am am am am léeg-léeg sax ñu rey nit ba pare duñu fekk ci moom dara te yorul dara da nga ko gis nii muy dem rek nga jàpp ne kii li mu sol nii war naa yor dara fekk xamoo ne sax peut-être day lebi dépasse faj suba gi nga dem rey ko tey foofu lañ toll suñu borom ne subhanahu wa taala nit ñooñu nga xam ne ñooy dénkaane wala jigéen ñooñu ñuy dénkaane nit ñi nañu ragal yàlla ba jëfe ndénkaane googu nga xam ne moom la boroom kër gi faatu dénkaane woon nañu bàyyi soxna si mu jàllale iddaam nekk ci biir kër gi bañ a génn ba idda bi jeex loolu nag nañ ko fa bàyyi mataan ila al xawl gayra ixraaj nañ ko fa bàyyi ba mu mat at mu bañ a génn mu ne fa in xaraj na bu ñu génnee nag ñoom jigéen ñi te ñi nañ ba tënj bi jeex ñu génn fala junaaha bàkkaar amul aleykum ci yéen yéen yéen ñan yéen kilifa yi yéen kilifa ku jigéen gi ndaw si tënj na jeex na génn na yéen kilifa ku jigéen ki amuleen bàkkaar fii ma faal na fii anfusihinna ci jigéen ñooñu loolu ñu def ci seen bopp ndaw si léegi loolu muy def suwaaletu takk ay takkaayam xeeñu parfum cuuraayu sol yére yi rafet pour jaayu pour wane boppam loolu yéen parents yi amatu leen ci par responsabilité moo tax yàlla mu ne fala fa in xaraj na jigéen ñi bu ñu génnee fala junaaha fa in xaraj na ay min bayti zawj al mutawaffi ci kër borom kër gi faatu qabla nihayati sana bu ñu génnee nag avant sax at boobu seen borom kër gi waxoon génn nañ nekk nañ fi après maar nañ génn nañ yéen parents yi amu leen ci par responsabilité buñ fa ma nekkee tamit ba at bi jeex bu ñu génnee ah lépp lu ñu def fala junaaha bàkkaar amul aleykum ci yéen fi ma faal na ci ñoom jigéen ñi la ñu def fi anfusihin na ci seen bopp min maarufin ci njekk waaye lépp na nekk ci cadre njekk baat bi ñaatoon lañ ko jàng ci koor geeg léegi njekk lislaam lépp njekk la fasa sax ñu ne njekk tàqalikoo njekk wax yàlla mu ne na nekk njekk qawlun maarufun xayrun min sadaqatin yatba'uha azan wax ju neex moo gën sarax boo xamante ne bi nga koy saraxe da nga cee boole ay lor ak ay xaste wax ju neex ah sëriñ bi waaw muñal ñu ba beneen yoon de beneen yoon nga jaaraat incha allah waaw xëy na nga fekk fi dara moo gën am lakkale lëj le gis nga islaam wax sax wax sax wax ju neex la jiital ci nga jox nit lépp maaruuf islaam xamul xamul lu ñaaw waaw lu tax parce que ci yàlla la bàyyee ko te yàlla amul lu ñaaw looloo tax boo defee lu baax su lay fay lu mu lay fay fukk mais boo defee lu bon déedéet du la du la fay benn de sa benn bi nga defoon daf la koy bàyyee parce que amul lu bon lu mu la jox moo tax mu bàyyee la benn bi benn lañ lay bindal parce que benn bi nga def mais boo defee lu baax comme yàlla dafa yor yu baax mu daal lay yokkal mais bi nga fekkee lu bon nga def yàlla amul lu bon lu mu la jox mu bàyyee la sa benn bu bon boobu amul lu bon yàlla amul lu bon yàlla lu baax rek la yor waaw te bëgg nit ñi jël ko baax mbokk yi ñun ñëpp war nañu xalaat lu waaye yàlla di wax ci alquran pour moom la wala pour ñun la ah pour ñu pour moom la pour ñun la in ahsantum ahsantum li anfusikum bu ngeen defee lu rafet yàlla nee na seen bopp ngeen ko defal misaal laay joxe yu bon yi yàlla araamal wala mu tere ko xoolal yëpp benn par benn di nga gis ne baaxul ci nit jëlal sàngara baax na est-ce que amul benn njëriñ gisal naankatu sàngara bu dëkk ci koñ kenn du ko respecté buy ñëw ak manditeem di langar-langari di ñëw oh sa yaram day daw ku mu nekkoon sa baay doo doo ko bëggati ku mu nekkoon sa yaay doo ko bëgg ku mu nekkoon sa doom doo ko bëgg ah démb dama demoon Colobane maa ngi fekk benn histoire benn xale bu jigéen boo xam ne mi ngi poñe benn ponkal boo xam ne sa yaram day daw naan ko boo mandee kenn dootul déggati da ngay ñëw di fi daj la mais tey maa ngi lay xaar ndaw si boo ko kuuram taxaw toog di xaar gaa yaa ngi jàpp waa ji waaw di ko yedd ndaw si toog rek ci njaayam di ko xaar naan ko dangaa mandeeti mais maa ngi lay xaar nga xam ne kon yàlla lu mu tere mooy dëgg jël ko ci yeneen yëpp nag jël ko ci njaaloo jël ko ci lekk riba jël ko ci sàcc jël ko ci fen jël ko ci lépp lu yàlla tere di nga gis amalul doomu aadama njëriñ kon pour doomu aadama baax la wala fi nee na ku leen sangul sa taar la bëgg kon yàlla bu nee na nu sangu lan la bëgg kon yàlla lii mu ñuy jàngal nii ci diggante sunu biir xolal nga sëy ak nit bay dee parce que yéen a ngi doon nekk ci lu rafet ngay dénkaane nga koy dénkaane naan ah xam naa sax maa ngi dee mais bu ma dee bu leen ko saax saaxee génne ko bàyyi leen ko fi ci kër gi xoolal lool parce dafa war a rafet dafa war a rafet yépp dafa war a rafet kenn warul tàqalikoog nit ci tàqalikoo bu ñaaw ci lu mu mën a nekk parce que ëllëg moo tax wala fi dañuy wax ne ëllëg du añ du reer waaye ma ta sedd mais tey da ngay gis ay nit ñoo xam ne bu ñuy fase nit dañ naan ko non doo non doo demee noonu day yomb kii foog mu utal ko cicatrice waaw toj bët bi wala toj bakkan bi wala sone ko toj gémmiñ gi wala damm loxo bi wala damm faar bi wala ndaw si tamit nga naan non kii comme daf may utal wujj xaaral rek foog mu utal ko mandarga boo xam ne bu ko doomam yi ne lii lan la papa lii lan la mu ne seen yaay moom ma sotti woon diwlin bu tàng wala tey foofu lañ toll góor ñi ay jaase lañ yor jigéen ñi moom ay asib ak ndox mu tàng lañ yor sànq benn waa benn mbokk ci jàkka ji mu ne ma man léegi dama ragal sax sama soxna yi lekk sax bu ñu ma ko tegalee léegi damay hésité ah parce que ñàkk dund diine la jigéen ñi loolu rek la ñuy wax day dégg ay jigéen ñoo xam dama naan dama man kii dama koy dëbbal butéel xott butéel laa koy def ci laax mu lekk ko dee parce que xam na ne après bu ñu la reyee dara du ci nekk dara du leen ci fekk day rey après ñaata ji léegi loolu dégg ñaata jigéen ñoo rey seen jëkkër. ñaata góor ñoo ñaata ñaata kenn xamul nu mu toll moo tax yàlla na yàlla sàmm ixbaan yi mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na wallahu yàlla azizun ku not ci nguuram la waaye xakimun ku xereñ la aziz mooy koo xam ne nguuram gi kenn mun cee def lu ko neexul loolu mooy aziz mooy ku not ci nguuram nguuru yàlla gii kenn mënu cee def lu ko neexul ndox maa ngi nii wàcc na ko nit ñi téye ndax nit mën na ko téye taw bi buy wàcc est-ce que nit mën na ko baasal ba du laal suuf ah bu jant bi génnee ndax nit mën na ko teree génn bu xiinee ndax nit mën na yóbbu xiin wi bu ngelawee ndax nit mën na ko téye bu guddee ndax nit mën na indi bëccëg su bëccëgee ndax nit ñi mën na ñoo indi guddi su nit deewee ndax nit mën na koo dekkil bu nit di dund waaye loolu mooy kooku mooy yàlla mooy Aziz moo not ci nguuram lu ko neex mu def lu ko neex mu def Aziz kenn mënu cee def lu ko neexu waaye Hakim dafa xereñ lu mu def noonu la mën ngaa ñëw léegi fii ci jàkka ji nga xool ma ni tabax bi ni ñu ko defee du noonu fii nangam bunt yi ni ko menuisier bi defee du noonu sa yére yi nga sol mën nga ne tailleur bi dafa faussé fii walla lu nekk lu doomu aadama defal mën nga koo xool ba critiquer ko mais yàlla lu mu defal mënoo koo critiquer bul dem fen xoolal sa bopp wa fii anfusikum afala tubsirun yàlla mu ne xool leen seen bopp ci loolu kenn ku ne xoolal sa bopp sa nopp yi fi mu nekk fan nga bëgg da nga bëgg ñu changé ko fan lañ koy def waxal ñu dem sa bët yi fi mu nekk neexu la waxal foo ko bëgg ñu defal la ko sa bakkan bi fi mu nekk neexu la waxal foo bëgg ñu def ko gémmiñ gi fi mu nekk neexu la waxal foo bëgg ñu def ko tànk yi fi mu nekk nee- neexu la waxal foo bëgg loxo yi biir bi ku nekk waxal da ngay gis ne yàlla fi mu ko def foofu la loolu mooy xakim ku xereñ lu mu def noonu la kenn mënu koo critiquer xoolal kawar gi fi mu ko def xoolal jëbi xoolal nopp yi fi mu ko def ah bu nopp yi nekkoon ci biir mbubb bi nga xam nga pour nga dégg pour nga ubbi utal ko fermeture xaaral ma ubbi sama fermeture bi ndax ma dégg li ngay wax sa bët yi xaaral ma ubbi ma ubbi ah bakkan bi xoolal gis nga yàlla hakim mooy fu lu mu def rek noonu la xoola asamaan mooy wàcce ndox nekk ci kaw xoola suuf moom mooy dékku ndox mi yàlla da koy suuf xoola géej gi xoola ngelaw li xoola nit ñi ni ñuy doxee xoola rabu àll yi wala yàlla mu ne subhanahu wa taala seen bopp rek wa fii anfusikum seen bopp pour ngeen xam ne man maa yàlla su ngeen xooloon seen bopp rek ngeen xam ne maa yàlla wa fii anfusikum afala tubsirun xanaa gisu leen seen bopp mais nag nit ñi mënuñu xam yàlla parce que xamuñu seen bopp nit ñi mënuñu xam yàlla parce que xamuñu seen bopp nit ñi bu ñu xamoon seen bopp rek xam yàlla waaye ku réere sa bopp réere yàlla nan ngay xamee yàlla ci sa bopp xoolal rek jëlal par benn cër yi la yàlla defal jëlal par benn benn bu nekk lu muy liggéey ak lan moo tax mu koy liggéey est-ce que mënoon na fee ñàkk nopp mënoon naa ñàkk ci yow bën nag bakkan bi nag gémmiñ gi nag fi mu ne bu ñu leen woon waa yii yëpp ban nga bëgg ñu jële ko fi di nga am problème de ban ban nga bëgg ñu dindi ko bët yi wala nopp yi wala bakkan wala gémmiñ gi wala bopp bi wala tànk ban nga bëgg ñu dindi ko ci sa yaram ban ngay wax da ngay gis ne benn warta dañ yëpp fii la war a nekk kan moo ko defar yàlla lan moo tax mu def ko allahu akbar lan nga ko jox pour mu defaral la ko loo ko fay est-ce que mën na fee manqué da ngay fekk mënut a nekk kon mbokk jullit yi dëgg-dëgg nit ñi jot nañu dellu ci lislaam ñu xam ne lislaam rek moo ñu mën a dimbali àdduna moo ñu mën a dimbali àllaaxira waaye mënuñ cee dellu lu dul ñu xam alquran alquran borom xam-xam yi dañuy wax ne laa aqida illa bil aql nit pas-pasam mënta wér ci yàlla dul mu am xel ñu ne walal aql illa bil iman ñu ne mënoo am xel te gëmoo yàlla ñu ne walal iman illa bil maarifa mënoo am iman te amoo xam-xam ñu ne walal maarifa illa bil quran mënoo am xam-xam lu nga jàng alquran loo jàng jàng jàng jàng boo jàngul alxuraan amoo xam-xam moo tax chaque jour nga gis ku dem Europe jàng nekk lu nekk ñëw toog ak kenn koo xamante ne moom alxuraan rek la jàng waaye da nga yow yendoo ba ngoon mu fët la ci ñaari aaya ñaari aaya rek la lay fët zëndaan yi organisé na ci benn colloque téere boobu ci lañ ko génnee mooy téere boobu ñu tuddee ceci la vérité innahul xaq la tudd ci arab mu dajale borom xam-xam yi demoon biir géej lan moo fa nekk ci xam-xam ñi yor géographie di wax montagne yeeg yu kenn xamul ñiy def médecine di xool liir nu muy nekkee ci biiru yaayam ñenn ñu nekk dañuy yendoo wax ba ngoon soo paree mu ne la lii yàlla wax na ko ci aaya sàngam liiral aaya bi kon yàlla mooy mooy dëgg alxuraan mooy dëgg te lu ci yéeme mooy jamono bi ko yonent bi di wax yonent bi deful médecine nga jàng alxuraan yàlla di wax liir nu muy juddoo lan mooy sos nit kuy buy dund ci biiru yaayam ñaata at lay nekk ñaata weer lay nekk ci biiru yaayam nan la fay nekkee lan moo ko composé buy judd ni muy juddoo nga ñëw médecine mënu ci tegg virgule kon kon yàlla mooy dëgg kon yonent bi yàllaa ko yónni nga ñëw ci biir géej li yàlla wax ci alxuraan ndox mu géej noonu la mel ndox yi noonu lay tegalu ko vague yi noonu lay def nga fekk ko ci alxuraan nga ñëw fekk montagne yi yàlla di la wax façon yi ci am yu weex yi yu xonk yi yu ñuul yi montagne yu suuf montagne yu xeer te yonent bi deful ban ban lycée la ji la génne ban université la yonent bi génne kon ñu xam ne alxuraan mooy dëgg lu mel nii nag nit ñi waruñu ko am di làmbatu tey président bu ñuy woteel lu ko waa Sénégal di laaj programme waaw ñun am nañ programme suñu programme mi ngi nii mais biñ ko fi bàyyee lan alku xoola saxaaba yi nga xam ne dañoo jëloon programme bi dund ko yonent bi génnul àdduna dul islamisé na golf bi yëpp parce que dañoo amoon programme mu génn bàyyi fi Aboubacar Omar Ousmane Ali ba keroog xilaafal islam di daanu boobu jullit ñi xamoon nañ fu ñuy teg seen tànk mais bi leen tubaab yi nan naree alak dañ leen xañ alxuraan waaw gëmloo leen ne téere barkeelu la ñu ñëw léegi di ko def téere barkeelu bala ñu koy jàng am ku dee wala ku tabax këram ba pare balaa ngay toxu wala ku bëgg liggéey ñii di ko sangoo ñii di ko jàmb ñii di ko booleeg tàndarma ñii di ko booleeg suuka ñii di ko booleeg lem ñii naan rek léegi jàpp ne loolu mooy alxuraan def nit ñi ay sëriñu tariyaax koñ boo dem juróomi sëriñu tariyaax a ngi foofu toog borom bi nee na walil mutallaqaat ñeel na jigéen ñi ñu fase mataan yóbbal bil maarufi ci njekk gis ngeen yóbbal mataan yóbbal laa mubaalaga fiha wala taqsir ku fase ci jabar xam ne xamal nga war nga koo jox yóbbal walil mutallaqaati ñeel na jigéen ñi ñu fase mataaun yóbbal bil maaruf ci njekk ku fase jigéen ko yóbbu ba marché jëndal ko yére jëndal ko takkaay jëndal ko parfum jëndal ko ay diw jëndal ko jëndal ko jëndal ko jëndal ko jëndal ko ñëwaat teg ko ci oto yóbbu ko ba seen kër delloo ko ki la mayoon est-ce que noonu la ñuy fasee fii yi gars yi bu ñuy fase dañ leen di jàpp ci ndigg dañuy jàpp ndaw si mu takkaay yor ku du cunwaar ñu jàpp waa ji daan ko bul topp seytaane bul topp seytaane mu naan bàyyi leen rek bàyyi leen ma làggal ko balaa muy dem waaw ndeysaan xoolal lislaam rek walil mutallaqaat ñeel na jigéen ñi ñu fase mataaun yóbbal bil maaruf ci njekk lii nag yàlla ne xaqan droit la alal muttaqina ci ñi ragal yàlla ku ragal yàlla buy fase jigéen nii la koy fase allahu akbar xaqan mutaayinan alal mutlaqina al atqiya àq la boo xam ne droit la boo xam ne yàlla subhanahu wa taala teg na ko ci kaw ñi ragal yàlla ñu fasee noonu seeni soxna boo ragalee yàlla booy fase jigéen bi doo ko lor ndeysaan moo tax dañoo laaj benn waay benn waay dafa laaj benn mbokkam ne ko sama doom ji jigéen ji kan laa koy may mu ne ko may ko ku ragal yàlla mu ne lu tax mu ne bu nekkee moom du ko lor su koy fase du ko lor parce que xam na ne bu ko loree ëllëg yàlla laaj ko gis nga ku ragal yàlla luñ ko dénk mu jub bu ñu tey bu ñu dénkoon ñu ragal yàlla suñu réew mi du ñu am problème mu milliard est ce xam ngeen li ñu tabaxee monument bi defaroon na Sénégal ca- canal yi canal yi kondir yi inondation bi li ñu tabaxee monument bi defaroon na inondation Sénégal waxuma Dakar de Sénégal ñaata milliard la ah ñaata milliard ngeen tabaxee seen monument bi seen monument bi seen monument bi ah yéen a ko moom de yéen waa Sénégal seen monument bi ñaata ngeen ko tabaxee defar rek la woon na problème mu inondation bi xoolal léegi ban njëriñ la ñu amal waaw ban njëriñ la ñu amal lii ban njëriñ xoolal nit ñaa ngi nii inondation bi ñaata nit ñoo ci dee ay miir di daanu seen kaw ñii courant di leen maas ñuy dee ñii ndox mi di leen génne ñaata at ah ñu jël milliards yi di yàq ndeysaan parce que lu tax yéen yéen a fal ñu gëmul yàlla foo rek ñuy fal ñu gëm yàlla bu ñu falee ñu gëm yàlla ñu liggéeyal yàlla maanaam du ñu liggéeyal ngir réew mi mais dañuy liggéey ngir yàlla parce que xam nañ ne yowmal qiyaam yàlla dina leen laaj gisoo Omar dafa waa waaju gént gis Omar yowmal qiyaam Omar a ngi ñaq yor morso di fomp waaye ñëw ba ci moom ne ko Omar ñaq bi lu ko waral mu ne ko ci bi ma nekkee amirul muminin dafa am benn pont bu yàqu woon ci Irak Irak ak Arabie Saoudite xam ngeen ne du benn dëkk ah Irak ak Arabie Saoudite du benn dëkk de Omar a ngi woon Arabie Saoudite Irak xoola fa mu nekk mais moo jiite woon lépp mu ne dafa am benn pont bu fa yàqu woon defaruma ko am ay xar yu fay jaar benn pont ci pont bi daal di jam benn mbote mbote mi tataanos dee mbote moom lañ may laaj léegi nii yowmal xiyaam lu taxoon defaruma pont bi waxul nit de xar mbote mbote allahu akbar allahu akbar moo tax tëdd na guddi munta nelaw mu jóg di contrôler dëkk bi mu ñëw fekk benn jigéen benn kër ay xale di jooy mu fëgg kër gi femme bi ubbi mu ne ko xale yi li ñuy jooy mu ne ko seen papa dafa Omar a ko yónni woon jihaad mu dem ñu rey ko amatul ku jox xale yi lu ñu lekk te xamul Omar lay waxal mu ne ko lu ci cin bi mu ne ko ay xeer laa ciy baxal bu ñu jooyee ba sonn rek tëdd ma naan leen ñoragul ñoragul bu ñu nelawee rek ma teggi cin li Omar ubbi gis xeer yi di bax rek mu daw utalu baytil maal mu ñëw ne waa ji yen ma waa ji ne ko ma yenu ko wala nga yenu ko mu ne ko yen ma ko parce que yowmal xiyaam doo ma yenul samay bàkkaar ma yen la wala ma yenu ko amirul muminin man maa ko yenu wala yow mu ne ko yàlla na la sa yaay ñàkk ndax ëllëg yow man xiyaam yaa may yenul samay bàkkaar mu ne ko déedéet mu ne ko kon yen ma ko mu yenu saaku sunguf bi daw ak moom mu yëg si xotti saaku bi ci guddi gi ñu soog arawal xale yi moom Omar mu toog araw ko def ko ci cin bi ba mu ñor xale yi lekk ba xale yi nelaw mu ne ndaw si suba nga suba nga ñëw wuyu si Omar te xamul Omar lay waxal ndaw si naan ko wallahi Omar a bon yow mii la ñu war a jox réew mi nga jiite ko Omar baaxul yow la ñu war a jox nga jiite jullit yi Omar baaxul ndax xamul ñun lu ñu nekkee mu ne ko waaw lu ci mën a nekk rek suba nga ñëw fële mu ñëw fekk ki doon araw ki yéen woon saak bi mooy Omar moo toog gis ngeen maanaam ñooñu noonu lañ meloon dañ doon nemmeeku réew mi xam nit ñi lu ñu nekkee waaye ñoo xam ne boo nekkee ci tournée sax dëkk bi di tàkk doo ñëw lu ñu ne la sa doom mu ngi lakk nga daw loolu du lislaam suñu borom ne kazalika nii yu bayyinu la yàlla di leerale yu bayyinu laahu la yàlla di leerale lakum ñee leen aayaatihi aayeem gis ngeen yàlla nii la ñuy leerale aaya yi gis ngeen nii mu ñuy leerale atte yi atte deret atte sëy atte ténj atte ku jëkkëram faatu atte miiras atte atte atte nii kazalika nii yubayinu llahu lakum la leen yàlla di leerale la leen yàlla di faram fànceele aayaati yi aayeem yi waaw bu ñu yàlla leeralee nag ba pare ba mu leer lu ci des bu ñu yàlla leeralee ba mu leer ñu ne yàlla de dëgg-dëgg lii la wax waaye nag waaye nag Sénégal loolu mais léegi ñu ne waaye nag waaw lii la yàlla wax waaye nag ah lii la yàlla wax kay lu ci desati ah mais waaye xam nga dëgg la li nga wax dëgg la mais xam nga nag waaye nag walla moo ñu indi problème léeg-léeg nga gis ku la woo téléphone wax wax ba pare ne waaw xam naa nag man sax wax dëgg yàlla waxoon nañ ma li yàlla wax waaye xam nga rek ah léegi bëgg nag yenn saa yi ay nit dañ lay woo di la bëgg a booleeg yàlla waaw waaye man de duma sama yoon du ci nekk ci digg bi rek martu bi rek laa jël dóor ko ci waaw ay ay nit seen xar tabaski dafa dee fekk dañoo yar xar bi wax xar bi sam waay koo gis bëgg koo tabaski xar mi daal di xëy rek dee bisu tabaski bi balaa imaam bi di julli léegi nag xam nañ ne dafa médina araam na ñu bëgg a dem ci imaam bi pour imaam bi daganal ko imaam yal na la yàlla fay yow ku baax nga doo tas yaakaar imaam ñun dañoo amoon xar moo xam ne ràkkal la doon lekk ngooñ kiran la doon naan daawul naan sax ndox mi kiran xar mi yar nañ ko juróomi at ba boo ko gisee la ilaha illallah imaam xar mi xëy rek fitititi imaam mu ne luy fitititi xar mi daal dafa xëy rek bañ a nooyi imaam kon ne daa dee xanaa ah nooyi wut de waaye xam na ne moom ñun xam naa ne dara nekku sax mais dafa nooyi wut xam nga nit ñi duñ laaj dëgg gi duñ wax dëgg gi dañu bëgg léegi imaam mu ne ah comme nooyiwul da ngeen di daw ngeen rey ko léegi ñu ñëw profité rey suñu waxee ñu ne imaam nee na imaam moo ñu ko wax xaar mu nooyiwul kay loolu mooy la munu ñoo daa dee rek waaye nooyiwul bu ñu bëgg léegi mu leen da ngeen daw ngeen rey ko léegi nit ñi noonu la ñuy def dañuy nekk seen tooxi doona ba dara xew ñu bëgg a ñëw nag léegi wax la benn wax boo xam ne indi ci ay sentiment indi ci indi ci nooyal mbir mi dugal ci yërmande pour nga ne leen waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw léegi waaw waaw waaw waaw comme demee na noonu xam nga comme kii ah ah léegi bu ngeen demee rek ngeen lekk dara nekku ci loolu day musiba naaru laay la yàlla leeral na lépp kazalika nii yubayinu llahu lakum la leen yàlla di leerale ayaatihi aayem yi waaw ginnaaw nag loolu yàlla leeral ba pare yàlla des sur rek lu dul jëfe laallakum ndax yéen taaqiluuna ngeen xelu gis ngeen taaqiluun ngeen xelu ngeen am xel maanaam chaque jour ma wax leen ne bu ñuy jàng alxuraan nañu bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee ku am xel bu ñu la leeralee ba pare looy def lu ci des ku am xel bu ñu la toggalee ba pare ku am xel bu ñu la tànqalee ndox ba pare ku am xel bu ñu la ñawalee ba pare ku am xel bu ñu la utalee liggéey ku am xel bu ñu la takkalee jabar ku am xel bu ñu la mayee paas yépp am na tontu wala amul tontu moo tax yàlla ne ginnaaw ba ma leeralee aaye lu ci des jëfe rek moo tax mu ne laallakum taaqiluun bu ngeen xelu xam ne liñ leen leeralal dara des ci dudul jëfe ah yoon bi fan la ñu leeralal la ba mu leer ba pare ne la da nga fa bëgg dem ñu ne waaw ñu ne passé ngi nii mën ngaa taxaw fii waa ji dem ngaa noo xaaral ma rek ma ma xaaral ma jàdd rek wala xaaral ma dox ko xam nga naroo jàmm waaw léeg-léeg nga dajeeg nit mu ne la sëñ bi paas laa ñàkk Dakar laa bëgg a dem nga dindi 500 jox ko nga tourné gis ko muy laaj keneen te paas Dakar 500 la xam nga ne kooku du dëgg léegi kay nekkatul paas Dakar xanaa paas Saint-Louis la kon yàlla su leeralee ba pare mbokk yi dara du fi desaat lu dul jëfee kon mbokk jullit yi ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala lii mooy aay yu ñu doon jël tey ñu ñaan buur yàlla subhanahu wa taala mu may ñu ñuy jëfee atte yi xéewal ak barke bi ci nekk yàlla nañu yàlla may nu màngu ko asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.